mu ngi doon jàngale ne dars doon jàngale mooy dégg nga eh, adduna mooy waruwaaye alaaxira kon àdduna waruwaay la pour dem àlaxira moom waaye nag boo ko naree def kër xam nga doof xam nga ne kooku doof na de yow nekk ci tukki yaakaar ne mooy dëkkuwaay ko kooku caaxaan kan la de ba nga xamee ne àdduna mooy war waruwaay àlaxira mu wax la nag yan mbir ñooy defar àdduna pour nga mën a organiser sa àdduna pour sa àlaxira mën a baax gis nga lislaam bu dee bëgg nga ko lu koy dëgëral lu ne da ko wut affaire yi ixlaas la ci xol mais jëf yi mën naa lëntal lu bari bëri na koo xam ne nii dafay kétti kétti ci àdduna te àddinaa ko tax a jug kooku xol ba rek moo ko mën a wane ak yenn jëfin yi nga xam ne dafay wane ne kii bu doon yàllaa ko tax a jug du def lii bëri na kuy kétti kétti ci àdduna soxlu ci dara mais dafa xam lu mu bëgg liggéeyal yàlla te bu amul àdduna du sotti kon bëgg nañu ne yow da ngaa ragal yàlla da ngaa ragal nangam ba tax nga bàyyi àdduna ngir bëgg nañu ne da ngaa ragal yàlla loolu ngir sëlla di la nga war a wut ci àdduna wutoo ko naa la nag la bëgg ni ay eh, diw ak ragal yàlla ak dëddu àdduna loolu nga ci bëgg loolu ngi sël la loolu moog dem di wut ci àdduna te yàlla taxul benn la rek ñaari jëfe bi yàlla taxul yàlla loo xam ni moom moo tax la bëgg na nga liggéeyal sa àdduna ba mel dootoo deeti nekkal liggéeykat woote na boo nekkee nitu lislaam nag yow yaa jàngal nit liggéey di liggéey jaamu yàlla lu tax doo liggéey lu tax doo liggéey liggéey jàngale doo ko jëfe wala liggéey da cee bokkutut kon jàngalekat wala nit fi di islam dafa war a liggéey tamit dafa war a am métier sëriñ ak yëpp ci am dafa war a am di liggéey di góor góorgóorlu di jaamu sa borom ba doo tàllal nit ñi di leen ñaan doo yaakaar doomu aadama <coughs> waaye lépp lu jëm ci sa mission eh, muy liggéey lislaam ak taxawal ko liggéey yi ngay liggéey yëpp na loolu tax soo defee loolu ak nu mën a xew na la nit ñi jàppee sax buuru àdduna waaye ci yàlla nga nekk yow xam nga wala xam ndax tàllal loxo dafa métti maanaam góor waru koo def boo boo nekkee njiit di tàllal loxo rek yaa ngi jàngal nit ñi yelwaan te nit ñi boo leen jàngal yelwaan yaa ngi def bëgg lañ yelwaan seen xol su yàggee ñu tëriyaa ndax amaana na nga mënoon a maîtriser sa bopp sax mënuñ ko kon del joxe exemple saa su nekk ci fexe ba doo tàllal loxo nit nga fexe ne yonent nee loxo bi faree kaw moo gën loxo bi faree suuf nga fexe sa loxo di faree kaw yow jaamu yàlla liggéey ci jaamu yàlla la bokk nga fexe di liggéey am àdduna pour organiser sa àllaaxira la nga fexe am àdduna pour def lu bëri loo xam ne ëllëg boo dee yàlla naa la gërëm waaw ah, loolu la waaye bul bul sàggande mbaa nga xam la kon liggéey leen liggéey leen te liggéey nag doy nag mu lay wax nag métier yi nga xam ne ñooy fondement ci façon métier yi ñooy cosaan ci métier yëpp nga xam yeneen métier yëpp bànqaas lañ ci waxul la loolu lu may nga bàyyi xel métier yi nga xam ne boo ci amee rek mën ngaa bañ a tumuraanke sa mu ne wa amaaluhum liggéey doomu aadama yi nag xam nga àddina pour mu baax waxoon na ne foofu mënul àddina mënul baax illa bi amaalil aadami yi mooy ci liggéey doomu aadama yi ma ne ko liggéey doomu aadama yi ci lan lay euh, yan ñooy cosaan mu ne wa amaaluhum seen liggéey wa xerafuhum ak seen métier wa sinaatuhum ak seen mm, mm, xarale mooy yi liggéey ba léegi rek tanxasiru dana takku fi salaasal aqsaam si ñetti xaaj liggéey ñetti xaaj yi nga xam ne ñoo cosaan ak yi nga xam ne nii euh, da dégg nga dafay liggéeyal cosaan yooyu maanaam mooy commence moom ngay njëkkee pour mën a yegg cosaan yooyu ak yi mottali cosaan yooyu jeex na ahaduha benn bi al usulul mooy cosaan <coughs> laa qiwaama déet ak taxaw lil aalami ñeen àddina bi duuna xaa ci lu dul cosaani waaye cosaani liggéey arbaatu arbaatu ñeent la <coughs> liggéey yi tax àddina baax dafa am cosaan cosaan yooyu bu amul ci àddina àddina du taxaw cosaan yooyu ñeent la bu àddina taxaw nit ñi duñ jaamu cosaan yooyu ñeent la kon lii tax métier yëpp métier yëpp mbooleem métier yi nga xam ne ni moo aju ci dégg nga doomu yi yi ñuy kooku ñeenti xaaj la yaa may dégg yëpp ñeenti xaaj wala boog ñetti xaaj laa bëgg wax maa ngi jégalu a jax ñetti xaaj la yii cosaan ak laytaay yi lay yeggale ci cosaan yooyu mën a normal ak liy mottali cosaan yi yëpp dana ko leeral cosaan yi nag laa la wax ne ñeenti xaaj mu bëgg nga takk affaire bu baax moo tax ma koy répété cosaan yi ñeenti xaaj la ban ak ban aziraatu mooy mbay moo tax bay mag ñëpp ci lañ nekkoon dañ laan bay ba bay loo xam ne président yi day ñëw di ko visite laan bay ceeb di bay dugub di bay lépp lu ñuy dundee waaye li ñuy taatale si mooy li ñuy dundee bayuñ ko dañuy dem di ko wuti ñu koy bay kon ñoo ñu ngi may doole ñële kon fexeel nekk baykat fexeel am tool yu bëri di bay waaye fexeel lépp lu ñuy dundee rek nga bay sëriñ si dañ laa jox exemple ci loolu de dañ si daan joxe exemple kon bay bul ko xeeb nga ne ko lan moo tax a jug mbay dégg nga ne ko lan moo tax a jug mbay mu ne wéy moom mbay lil ma tax mi pour lekk la yow yow mën ngaa ñàkk lekk ah lu yàlla wax wama jaalnaahum jasadan laa yakuluuna taama def may ngeen jëmm yoo xam ne du ngeen lekk de waaye wama kaanu xaalidina duñ fi sax comme que foo ñuy lekk foo ñu liggéey foo ñu bay tamit luñ dundee waaye comme ko duñ fi sax foo ñu jaamu yàlla kat ndax buñ dee mën a mucc kon laaya jooju wane na ne liggéey mënu ñàkk ndax daf ah, ñàkk lekk de loo ci déggee foo nga wut loo lekk da nga koy trier da koy sàcc da ngay fen da ngay tappe boo defee loolu buñ la ko defee du la neex kon loolu du dëgg de lay dëgg mooy nga dem liggéey pour loo dundee lii mooy yoon waaye léegi dañuy nax ab sëriñ naa léegi yow muqaddam nga kon yow waroo liggéey dangaa war a toog fii nangam nangam déedéet dangaa war a am barabu liggéeyukaay di liggéey di liggéey laa wax muqaddam dafa war a liggéey sëriñ dafa war a liggéey hmm? yonentu sax dafa war a liggéey ndax yonent yi dañoo amoon métti yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam commerce na dugg ci marché bi yow nga naan man sëriñ laa man borom xam-xam laa man jàngkat laa du ma liggéey moo tax nga ngay torox rek wala ngay tappale rek hmm? torox wala tappale bàyyi nee na àddina diggante asamaan suuf dinaa tedd te du ma sonn mu ne naroo njub boo bëggee tedd aajo boo am faj ko da nga liggéey waaye boo liggéeyut ne aajo boo am da ko faj naroo njub loolu la bàyyi wax wala wax na dëgg <coughs> kon kon jàppal ne mbay ci yi dëgëral àdduna ñeenti ponk yi taxawal àdduna ci la ñeenti ponk bay nag pour dund la kon li gën a xel mooy la ñuy dundee ci dëkk ba ngeen bay ko waaw ah, wala du loolu bay pour lan la pour dund da ngay xool yi ñuy dundee ci dëkk ba ngeen fexe bay ko wala dëgg-dëgg suñu njiit yi lu yàlla xam daane dañuy bay loo xam ni mën naa rënd rek la man fii li fi gën a fort ci bay mooy gerte gerte xeebuñ ko gaa waaye rënd la ceeb duñ ko bay soble yi duñ ko bay pomme terre yi duñ ko bay mboolem yi ñii dundee fii mu nekk nii wala ñu koy defee ki nga xam ne mënuñ koo ñàkk moo gën a seer ci dund dañ ko importé di ko jëlee ci bit di ko indi kañ lay réew mi avancé moo tax nit ñi duñu am luñ lekk. loo mën a bay bayal nga jàng jëfee lay jëriñ dégg nga yaa ngi seetlu ma lay wax. bu nit ñi de woon ki kii commerce kii àddina ko tax a jug de place am yu bëri nangam yi bu leen faale. ndax mënoo wax nañu liggéey leen ba pare te doo liggéey te jàngkat boo gis dana wax ne liggéey leen wax ci liggéey ngeen yu bëri lu tax moom du liggéey moom day leen liggéey bokk na ci liggéey bay waaw surtout nitu lislaam dafa war a dem ba li muy def ci wàllu lislaam soxlaatu ci dërëm loolu la war a def te loolu mënu mënu koo am lu may mu am métier yoo xam ne moom ci lay jëlee li mu loolu moo war ci nitu lislaam moo tax loolu def leen ko seen bopp yi bis ni ki tey di màggaale métier màggaale liggéey yoo xam ni nag du leen yàqal liggéeyal islam nag yaa ngi dégg lu ma la waxoon te loolu mën naa nekk de bu ngeen góorgóorlu mën naa nekk kon mbay mënul ñàkk mooy fondement bu njëkk ci métier yi nga xam ne cosaan lañ da ngay xool ni mu la ko tënkee dafa ne la lii taxawal àddina ñett la xaaj la benn xaaj moo am ñeenti xaaj kon bàyyil xel loolu waxul la lii taxawal àddina ñeenti xaaj la ñetti xaaj la benn xaaj bi moo am ñeenti xaaj fu mu nekk ñetti xaaj yi mooy yi nga xam ne cosaan yi la ak yi xam ne laytaay la pour cosaan yi normal ak yi nga xam ne dafay mottali cosaan yi léegi cosaan yi nag la day jàngale ne bu si njëkk mooy mbay xam nga dégg wala xiyaakat ak ñaw ñaareel ba si cosaan yi mooy ñaw mën ga gis nit koo xam ne du sol yére kon war nañoo ñaw parce que solu mënu ñàkk kon ñaw mënu ñàkk moo tax tax téer lu am solo la waaye moom lil malbasi ngir koddaay la ñaw pour pour pour sol yére moo ko waral ah kon war nañoo bay waaye war nañoo fexe lépp lu ñuy sol ñu di ko ñawal suñ bopp dafa mel ni loolu moom tamit ñu ngi si waaye ba léegi ñu ngi importé ay yére di indi ci biir te la doon yoon mooy lépp loo xam ne ni sénégalais yaa ngi koy sol ñu ñawee ko ci biir réew mi du xaalis bi dellu ci biir réew mi dana may doole ndaw ñi dana may doole waa réew mi te waa réew mi bu ñu amee doole nguur gi am doole ndax fere yu bëri du warati nguur gi nit ñi dañ ko tagg parce que nit ñi ngi am métier nguur du loolu rek lay jëlee nit ñi am métier bu nit ñi amuñ dara nag néew nguur gi day néew doole parce que ñëpp a koy jëppi di ko xas parce que liggéeyu fi dara di kon ñaw lu am solo la waaye fexe tamit ba yow mi dëkk ci réew mi li ngay sol ñoo ñawee ko ci réew mi lu am solo wal bannaaw ak maçon woowu moom li maskani pour dëkk waaye mas ngaa gis ku amul fu dëkk kon foofu ñu jàng tabax yaa ngi xam ne gis nga mbay ñaw tabax ci matière yi nga xam ne ñooy taxawal àdduna ci la bokk ñeenteel bi nag mooy wa siyaasatu ak politique xam nga ju bëri dañuy xeeb politique fekk politique mënul ñàkk waaye li taalifi pour boole nit ñi wal ijtimaay ak dajaloo wa taawuni ak dimbalante ala asbaabil maishati si sababu dund yi wa dabta ak takk mbiru dund yi politique xam nga mooy la mooy na fexe ba nit ñëpp benn mànkoo nekk ci li nga xam ni kenn ku nekk dana dund ci jàmm ak salaam du am benn problème loolu moo tax a jug politique fexe ba kenn ku nekk lam jo war a jot ci àqam ci réew mi mu jot ko kenn ku nekk am sécurité bu doy dégg nga loolu nag mënu am te njiit amut moo xam ne mooy àtt nit ñi di séddale bu dee ku nekk jël dem jël <laughs> dana gis ku jël lu ëpp àqam dana gis ku tooñ moromam waaye foofu njiit am kon loolu waral ñuy politique di fal kenn waaye kenn ko buñ ko falee li tax ñu fal ko mooy mu fexe ba mànkoo nit ñëpp bokk nekk kenn ci ñoom di jël seen xalaat boole ko xalaatam ñu fexe xool ban yoon la ñuy jaar ba nit ñëpp dund ci jàmm ak salaab lii de mooy politique loolu ñàkk kon ñeenti ponk yi ñooy cosaan ci dund bi mbay maçon ñaw ak politique politique nag ci la yonent yi nekkoon yonent yi seen politique ñaari xaaj la dana ko wax sax moom xool nan la ñuy nit ñi ba seen àddina normal loolu andi xam-xamu fiq de fiq lu mu lay wax ay boo fasee si jabar lii nii nga ko war a fasee lii mooy àqam lii moom mook moom lii moomu ko loolu du politique nii la ñuy eh, dund ak mbokk ak eh, dëkkandoo rek téere fiq yëpp ñu lay jàng ay rëbboog yooyu yëpp pour pour lan pour ñu xool nan la ñuy jaar ba ñëpp dund ci jàmm rek la politique la gis nga fiq yoon la pour adduna bi ni ñu nekk ci jàmm loolu bu ñu jëfandikoon fiq rek mandat yonent yi ne yàlla daf leen mayoon doole ñu nekk comme président ñoom ndax yàllaa leen fal ku ku xëtt luwaay bi nga xam ne mooy tax nit ñi dund si jàmm rek ñu yar la ñii dañuy dagg seen loxo ñii dañ leen di caw ñii leen nangam yooyu yëpp pour nit ñi dund si jàmm ndax bu demee ku nekk dem seeg jigéen ju ko neex loolu musiba am di ah ñu ne ah di aaya nañ ko pour nag nit ñi nekk ci jàmm organiser ko nag ku bëgg soxna da ngay takk nii ngay def ak nii nii pour kenn bañ a yaa ngi gis politique boobu de léegi nag ku xëtt luwaa ñu caw la mais dañ doon politique yi politique ak baatin mooy defar sa ruuxu nga ragal yàlla mbaax ba yore sa xol bi tamit yore jikko yi nga xam ne nii boo ko jëfee rek nit ñi nekk ci jàmm waaye sa àllaaxira it man a baax loolu moom wax rek lañ si daan def ak di fàttali nit ñi ak di leen waar kon politique ñaari xaaj la fexe ba tëral ay loi yoo xam ni jàmm dana am waaye fexe ba defar xol yi ak ruux yi nit ñi mën a dugg aljana du lii mooy politique léegi gannaaw yonent yi nag politiciens yi dañuy wax seetlu ko ñaari xaaj ñi ay borom xam-xam lañ ñi nitu àdduna lañ nitu àddina yi ñoo jël lu waa yi léegi dem saa si ne ko yonent indi tëri loo andi ñu mu leen neexee ñëw waaye jubluwaay yonent yi dëgg la mooy seen jubluwaay bal sama naam du seen jubluwaay parce que ñoom dañoo changé politique pour seen intérêt bopp waaw tëral luwaa bopp ne liñ ci jublu mooy nit ñu nekk si jàmm borom xam-xam yi ñoom séddale ko si politique baatin bi di fàttali nit ñi di leen waar pour seen ruuxu defar seen xol baax bañ mën a jubóog seen borom seen àddina yi buñ ci toppee mën naa bañ am problème. moo tax buur yi ñoo am droit boo boo sàccee ñu yer la boo defee nanga borom xam-xam bu amul loolu moom baatinu yonent bi rek la jël moo tax saa yu buur yi ak borom xam-xam yi defee nii rek mission yonent ñëwaat na yonent bu ma sëkk ngay gis ci kaw suuf. ndax boroom xam-xam yi dañ leen delloo ci nu yonent yi doon tëralee lu waa àddina yi ñoom ñu applique ko ci nit ñi force ni ñu tënku ci kon ba pare boroom xam-xam yi ñoom fexe defar baati ni kon mission yonent ñëwaat na lii moom mooy politique moo tax ku xeeb politique danga xamul lislaam xamul lislaam ndax moom pour pour nit ñi nekk ci jàmm la dund dund bu baax hmm? <coughs> loolu loolu ci lislaam la lislaam la bokk Hmm? su ko defee yi ñoo yor àdduna ñaw mbay maçon politique <coughs> yow nag ku nekk rek mën ngaa def politique mën ngaa mécc pour liggéey waaye mën ngaa politique mooy lan mooy gox bi nga nekk barab bi nga nekk fexeel ba mëneeg nit ñi jëflante ak ñoom ba sa àddina normal seen àddina ñoom normal boo mënul jëfante réew mi yëpp nga jëfante nit ñi nga nekk xanaa kay loolu man nga ko ah waaw fexe ba defee ko noo xam ne ñoom duñ loolu yow looloo yéen ñëpp ngeen dund jàmm ak salaam loolu politique la di moo tax yonentu sallallahu alayhi wasallam na sax dafa def siyaasa politique digganteem ak yahudi tëral ay loi yoo xam ni dëgg la yahudi dugguñ ci islam waaye nag buñ ko appliqué jullit ñi duñ lor yahudi yahudi duñ lor jullit ñi dinañ a dund ci jàmm loolu mooy politique loolu politique fexeel foo dekk rek nga am ak ñëpp am léeg ñëpp waaw di dem ak ñoom di gis ak ñoom nekk ci jaam yéen nekk ci jaam waaw xam nga mbir mën naa baax mais ñu bon porte drapeau bi ba nga cib mbir moom fekk déedéet lii du dëgg-dëgg mbir mi politique lu baax la bu leen ko xeeb waaye nag ñii lañ tuddee politique loolu moo nekkul politique loolu baaxul loolu mooy intérêt personnel la politique nag intérêt général la intérêt ñépp la kon yi ñooy ponk yi asaani ñaareel ba ci dund yi maanaam liggéey yi xam nga liggéey ñetti xaaj bu ci njëkk ñeenti ponk la ñaareel ba ci wàllu liggéey yi maam mooy la xam xëy moom mu xëy atun luñ préparé la li kulli waaxid ñeel benn bu nekk min haadi sina ati ci le métier wa xaadimatun aji liggéeyal la laxaa ñeel métier am na yoo xam ne ni cosaan yi nii ñoo ko tax a jug kër xidaada dégg nga ni ki tëgg kuy defar ay weñ ak yooyu way naa nag moom tax du mu dafay liggéeyal aziraata mbay rek defar ay weñ pour mën see ñaw pour mën a kii kon bay mën a mën a ji mën kon boo xoolee mbay ko taxa a jug wa ak ak mbooloo mi ne sinaati ci métier yi tëgg yi daal dana liggéeyal métier yu bari daa waaye moom boo xoolee weñ yi ngay defar yooyu leneen la leneen lañ ci dimbale rek mën na laa dimbale ci tabax bi mën na laa dimbale ci leneen ak leneen leneen bien daal di àlaatiha dafay préparer jumtukaay liggéey boobu kal xilaaja ni ki xilaaja wala xasine ak ràbb xam nga xilaaja mooy jël carton bi defar ko dëgg ko ba mu ba mu ba mu baax li ci bokkul yëpp nga génne ko ak ak ràbb yi ngay def loolu fay naa ne loolu tax du mu dafay liggéey rek yaa kat a ñëw pour nga mën a ñëw yére bi normal bien daal di amalee ci préparer liggéey liggéey liggéey ñëw kon boo xoolee. yeneen liggéey yëpp boo leen dafay dellu benn si ñeent yi dafay liggéeyal benn si ñeent yi asaayir su ñetteel ba ci liggéey doomu aadama yi maa moo leen xam xii moom mu tamimatun dafay mottali li usuli ñeel cosaan yi am nga xam day mottali cosaan yi xam nga liggéey cosaan yi ñeent la am na yoo xam ni dafay tax jumtukaay yi li ñuy liggéeyee eh, yooyu moom lay préparé di ko liggéey jumtukaay yi tax nga mën a bay jumtukaay yi tax nga mën a ñëw jumtukaay yi tax nga mën a tabax yooyu lay liggéey gis nga ñuy jàng plan kër ak yooyu yëpp boo xoolee ci dañuy liggéeyal tabax rek mais ci saan bi moom mooy tabax bu tabax amutoon loolu yëpp duñ ko jàng kon yooyu métier la ñetteel bi nag mooy li mottali cosaan yi boobu mu zëyinatum di ko taaral ka tax ni ni ki dëbb wal xub si ak defar mburu li ziraati ko dafay gën a taaral mbay rek la nga bay dëgg dëbb ci defar ci cere defar ci fodde defar ci nangam xam nga loolu métier la waaye loolu boo xoolee dafay mottali liggéey cosaan bi da nga génne cosaan bi da nga koy euh, tëggee noo xam ni defaree ko noo xam ni dina am ay résultat ak ay meññet yu bari nekkul ne loolu dëbbu ak defar mburoog yooyu moom ngay liggéeyee pour bay déedéet waaye yooyu dafay mottali mbay mi nga defoon mbay mi nga defoon nga génne ci lu nit ñi mën a jëriñoo bokkal xisaara comme xisaara mooy paase yi defar ko ba mu mu weex tal wal xiyaatal ak ñaw li la xiyaakati ñeel wal xiyaatal ak ràbbu li la xiyaakati ñeel jàng ni ñuy ràbbee dégg nga ak paase yére defal ko loolu ci xeeti ñëw bokk rek hmm? dafay gën a taaral li nga ñëw bu far rek dégg nga xiyaasa nag mën naa mën a mu ci la dessin yi nga ciy def ak yi demee noonu ràbbar ko ci mu gën a rafet boo ñëwee yére ba pare mën nga see ràbbar yeneen yu ko gën a rafetal kon lii moo am ci àddina ñeenti liggéey yi ñoo ci saan ñeenti liggéey yi nag am na yu leen i jumtu yoo xam ni dafay defar jumtukaay yoo taxawalee ñeenti liggéey yooyu ak yoo xam ni dafay mottali liggéey yooyu gën koo taaral maanaam génn meññet yi mën a juddoo ci liggéey yooyu mu misaal la ko ci doomu aadama ndax loo gis rek mën nga misaal ci doomu aadama mu ne wasaariku loolu bi daafate boo ko laafee ilaa qiwaami amril aalami ci taxawal mbiru aalam bi ardi bi ka suuf maanaam lii ma la wax mooy taxawal adduna bi maanaam suuf si pour mu normal foofu métier yi am léegi yow nga bëgg a dund si suuf si nga ne yow sëriñ nga yow kilifa diine nga yow doo liggéey loolu ko teg da leen préparé lu ngeen liggéey mis la ajzaay si comme xaaji jëmm ji bi idaafati boo ko tëkkaleeg ilaa jumlati ci mboolem jëmm ci maanaam gis nga adduna bi dafa niroog doomu aadama adduna bi ñetti mbir a ko yore liggéey yi nga xam ne ñooy cosaan ak yi nga xam ni dafay préparer ay jumtukaay yu liggéeyal cosaan yooyu ak yi nga xam ne dafay génn ay résultats yu liggéey ci liggéey cosaan loolu mooy yi koy mottali jëmmi doomu aadama yi noonu la dafa am ay cosaan ak yuy préparer pour liggéeyal cosaan yooyu ci jëmm ji ak yuy taaral jëmm jooju rek yuy taaral yooyu rek cosaan yooyu yi nga doomu aadama de alam bi yëpp ci moom fay naa naka jëmmi doomu aadama salaasal adru bi ñetti xaaj la ay ba tey imma benn usulul yoo xam ne ci saan la kal xal bi comme xol wal kabid ak res wa dimaaxi ak yuur yooyu mënu ñàkk si doomu aadama boo imma benn xaadimatun aji liggéeyal la laa ñeel ci saan yooyu kal maidati comme biir day liggéeyal res yeeg yooyu rek wala waroo ko ak siddit yi moom li ko tax a jug mooy deret ji di mën di daw ci xol bi jugee ci xol bi dem ci yaram yi wa saraayin ak saraay ak sarayaan yi dégg nga mooy yi nga xam ne ni ñooy jël deret ji di ko jëlee ci xol bi di ko euh, ci si si yaram bi wala ansaab ak sidit yi wala awridatu ak ak raakool yi raakool yi mooy jëlee euh, euh, deret ji ci yaram bi yóbbu ko ci xol bi daa am yu jëlee ci yaram bi di yóbbu ci xol am yu jëlee ci xol bi di yóbbu ci ci yaram bi yii xol la ñuy liggéeyal rek way maa benn mu kamilatu aji mottali laxaa ñeel cosaan yooyu mu zénatu aji taaral ko kal asvaari comme weeyi wee dafay taaral rek wala asaabi ak baaraam yi wala nit mën naa ñàkk baaraam tamit du tee mu dem waaye bu amee baaraam gën a rafet wala xaaji ak ñaari xiin yi gis nga eh, yeeg yooyu dafay affaire bi rek mu gën a rafet gis nga doomu aadama sax yàlla may na ko lool adduna bi noonu la mel liggéey yoo xam ne mënu cee ñàkk ak yoo xam ne daf lay préparé ay jumtukaay yoo liggéey liggéey yu ci mënu ñàkk yoo xam ne nii daf lay mottali di gën a rafetal la nga liggéeyoon tabax am na yoo xam ne fondement yoo xam ne mënu cee ñàkk ak yoo xam ne daf lay andi bâton ciment yu tax nga mën a liggéey loolu ak yoo xam ne daf koy taaral comme peinture yeeg affaire yooyu photo yeeg yi demee noonu doomu aadama yi noonu la am na cër yoo xam ne mënu ñàkk ci moom yooyu xam ne dafay taaral doomu aadama di mottal mais doomu aadama bu ko ñàkkoon sax du a a continuer hmm? a tabax ci diine du organisé mu lay jàngal nag àdduna mooy def ba lim ci bëgg a tabax rek wan la ni xam-xam amee amee solo dégg nga hmm? foofu rek la jëmaat waaye jàngalaal na la ci tamit liggéey ah jàngalaal na liggéey waaye wax na la tamit liggéey yi nga xam ni ku yar réew ku ne war nga ko bàyyi xel fexe mu am ci réew mi imagine bu fekkoon réew mi lu ñuy sol fii lañ koy bàyyi fii lañ koy ñawee mboolem lu aju ci wàllu dëkkuwaay fii lañ koy tabaxe matériel yi fii lañ koy jëndee mboolem lu ñuy dundee fii lañ koy bayee politiciens yi la leen tax a mooy ni ñu nekk si jàmm billaay réew mi dox koro réew mi dana dox de waaye bu politiciens yi dëngee mbay mi ci biti dund gi ca biti lépp ca biti euh, yëre yi ci biti muy réew mi si kon moom jàngal na sax ni ñu yore état fi nekk nii إن أريد الإسلام واستطعت والتوفيق الى إلا توكلت عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته